ci semaine bi nga xamante ni moom la ñu euh, nekk di génn ci loole nag moo waral tey ñu indilaat fi ki nga xamante ni bu ngeen ko fi gisee war na jaar na fi benn yoon donc bu fi teewaatee rek euh, loolee day wane ni rek moom euh, miin na kër gi et que bu répondre suñu invitation ñun duñ def lu dul ci sawax ak di ko ci remercia chaque fois kooku nag di Ousseynou Ly Ousseynou Ly bokk ci cellule comme bu parti bi di Pastef bokk ci coalition bi di Yewwi Askan Wi Ousseynou ñi nga ama mbégte vraiment di la recevoir tey jii le bu Sénégal VSD fii léegi Sénégal 7. waaw merci beaucoup Penda di la remercier ci mm-hmm. invitation bi. di mm-hmm. amaat comme ni nga ko waxee mbégte ñëwaat fii. kër gi moom sa kër ko kër gi moom sa kër la. waaw maa ngi fi bëgg am pantere daa mel amaguma fi néeg nag quoi ndax mel ni maa ngi fi bëgg am pantere. di nga fi am ne kër gi sa kër la. effectivement donc di am mbégte di teew ci plateau bi di nuyu. Euh, ñi nga xam ne ñu ngi leen di suivre sur votre plateforme YouTube Facebook et tout ça. Mhm. donc di leen beral nuyoo bu baax a baax. Mhm. ñun également ñu euh, remercier waat suñu mbokk internet yi nga xamante ne à chaque fois ñoom ñoo safoo programme yu Sénégal 7 rawatina seen programme weekend bi di Sénégal AVSD weekend bu jot na ñeen ci mun a ànd ak man mi ak sama invité yi nga xamante ne à chaque fois ñu ngi répondre favorablement euh, ci suñu invitation Ousseynou nag sans plus tarder dañuy daal di dugg bu baax a baax ci waxtaan bi Euh, njëkkee ko ci actualité bi donc bi ci gën a fës nag bokk na ci euh, violence yi ñu nemmeeku woon ci fan yi ñu génn mhm. euh, ñeel ci stat yi gis nañ li am diggante Papa Sow ak Siteu ba combat ba sax dañ ko mujjee annulé gis nañ tamit li am ci stade bu Tëngéej ba benn ndaw ñàkk ci bakkanam ci loolee sax ñu ngi jébbalaat suñu njaal famille boobu boobule xale bi nga xamante ni ñàkk na bakkanam foofee ca state bu Tëngéej donc violence yi ñu xamante ni ba jamono ji la ñu ngi koy dund ci réewum Sénégal naka nga ko gisee Ousseynou mu nekk lu metti quand waaw di euh, masawu ñi nga xam ne ñoo nekk ci métit yooyu mhm. euh, di joxe suñu njaal ci euh, njaboot gi nga xam ni ñoo ñàkk seen seen doom mhm. donc dafa neex neexul ci xol surtout koo xamante ni ci cadre boo xamante ni fo ak kaf kaf ak ree la waroon jur wëlbatiku jafe-jafe yooyu am ci ba ñàkk bakkanam ci donc dafay nekk loo xamante ni gënut mhm. te nekk na lu ñuy condamné mhm. avec la violence je me dis que question de euh, fait de société la mhm. donc c'est pas une question boo koy traité danga koy traité ci benn angle kese mm. donc mais fait de société la man je pense que li war mooy d'abord une interpellation individuelle ku ci nekk si sa jëmmi bopp nga xam ni yow tey jii bu violence amee lan moo ci sa taxawaay. Hmm. ban taxawaay nga ci am est-ce que yow bokk nga ci ñi woote violence est-ce que bokk nga ci ñi def violence est-ce que bokk nga ci ñi propagandal violence. Hmm. est-ce que bokk nga ci ñi nga xam ne dañuy inciter violence. tu vois hmm. donc responsabilité individuelle la avant que muy nekk responsabilité collective. te quand on parle de responsabilité individuelle je pense que dafa am ñaar yoo xamante ni moom ngay xool. li nga xam ne mooy ñëw ci cadre privé ak li nga xam ne dafa ñëw ci cadre public. Mm. avant nga xool cadre public da ngay xool cadre privé. Mm. mooy maanaam dëkkuwaay yi. Mm. nekki nii ci kër yi nekkin yi ci gox yi tu vois. donc loolu buñ ko saytoo ñu seet lan à ce niveau maanaam kër yi néeg kër yi ëtt yi lan lañ ci war a mën a def. ci jàng ci orienté ci xamal ci yee. ak itam dans le cadre familial. certaines mesures yoo xam te ni euh, euh, responsable yi wala kilifay famille yi mën nañ ko jël. Mm-hmm. avant muy àgg ci benn euh, ci biir violence yooyu c'est vrai que yaa ngi nekk ci point bu am solo mais bari tamit ñu ci dul baaraan yenn way politique yi. waaw parce que tamit nee nañu yéen yéen chaque fois yéenay woon xale yi yoon yi que ce soit politique fu nekk et loolu à chaque fois day incité tamit ñu gën a maanaam au lieu que yéen ngeen leen di raisonner da ngeen leen di woon yoon bi. bon euh, xam xam nga en fait maa ngi doon ñëw cest que ñaari ñaari cadre ngay njëkk a considérer hmm. pour euh, pour wax ci affaire violence da ngay xool cadre privé mooy espace familial bi may wax hmm. ku ci nekk sa responsabilité luñ la ci interpeller loo waroon mën a def te defoo ko loo waroon mën a changer et tout ça defoo ko donc nga ñëw ci beneen cadre mooy cadre publique bi nga xam ni dafa am benn euh, organe hmm. benn say bu taxaw war ko saytu te mooy ñu tuddee état donc état ci cadre privé ak cadre publique ñoom ñaar dañu na ku nekk xam ni euh, taxawaay bi ngay am day am incidence ci beneen cadre bi. Mm. ñi nga xam ne dañ nekk dans le cadre privé war mën a tàggat seeni doom war leen mën a saytu seet leen xool leen orienté leen jàngal leen tette leen yee leen ba yu mel ni lu lay jugal ci ay violence wala yu lay ciy poussé nga génne ci yow boo ko defee rek dimbali nga état. Mm. état nag boo ñëwee ci cadre état bu fekkee ni par exemple li ñu deexu du waroon joxe ci cadre privé sooxe na maanaam doxut wala lañ ci war a def matut état nag mi nga xam ne moom la ñu dénk cadre publique moom itam dafa am lu ko ci war donc moom mu am ci responsabilité war saytu du ne ñun ñoo <laughs> xam nga xam nga violence am nga nga jiñ ko pol yow mi di kii nga jiñ ko ñi di def politique man je trouve que c'est assez facile parce que politique yi ñoo nekk ci kër yi bu fekkee ni yow politique bi buñ ko yarut ci kër ga mu ne bu génnee du yaru kon àndoo nga xamante dañoo ne am lépp loo gis mooy li wax la responsabilité elle est individuelle mm. mooy maanaam bu violence amee ku nekk seet ban taxawaay la ci waroon am taw amu ko ci. mais mën a def donc euh, selon toi pour résolver violence rawatina nag ci élection yi nga xam ne nañ ko. mais euh, en fait boo ñëwee rek ne élection tudd violence donc dafa mel da ngay circonscrire violence dans le cadre politique. mais euh, alors bi nga wax. cadre bi nga wax jéggi na cadre politique. mais yéen lu leen ci saf ngeen ciy def tamit yéen yéen. non yéen way politique yi Ousseynou. tu es d'accord ak man ci loolu. mënul nekk nous sommes dans état bi dafa organiser société bi am ku ci nekk lii la war ak lii la warut. ñun à notre niveau lu ñu xam mosoo gis mooy wax parce que je suis dans le cadre du parti bi ma bokk. Mm. mosoo gis. Mm-hmm. ba ñu soxe euh, comment dirais-je euh, tegee Pastef mu mm. taxaw ba tey foo fekk nitu Pastef wala militant Pastef wala activité Pastef fekk ci violence musul am musul am par contre noonu nga mën a gisee à côté parti boo xamante ni tey jii ñoom la ñuy jox su qu'on appelle le pouvoir public la force publique ñoom lañ ko jox te pourtant bu ñu dajee ñoom ñooy dóorante d'accord mais euh, vite fait ni pour tëj euh, euh, parti boobee ne euh, les solutions waaw solution yi man damay renvoyer ku ci nekk sa responsabilité d'accord parent bi na xam mhm. lan la war a def ci doomam mhm. pour que bu génnee mu nekk koo xam te ni du lor société bi mhm. doom ji tamit ñu conscientiser ko ci à un niveau mu xam acte yi muy def bu génnee ban incidence la am ci société bi mm. ñi nga xam ni dañ yor état dugg ci laxisme parce que da yenn yi da ngay gis ñoo xam te nii dañuy war a sanctionner duñ sanctionner mm. bu ñu waree sanctionner nañ sanctionner mm. bu ñu waree itam accompagner pour que nit ñi nga xam ne jàpp nañ ñi wàllu euh, organisation ak orientation moo tax xëy na seen bët mënul ximmi ci yenn yi ba ñu xam seeni conséquences acte état accompagne leen parce que état ce n'est pas que juste sanctionner hmm. mais avant ngay àgg ci sanction bi war nga teg ay mécanismes yoo xamante ni xale bi wala nit ki bu fa jaaree balaa àgg ci ultime act boo xamante ni mën na ko andi mu def mu andi jafe-jafe nga encadré ko itam état la rôle am mu teg jumtukaay yi nga xam ni bëri na koo xam te ni def na violence parce que ba mu xëyee amul xëy jàngiwut ce n'est pas que ça en fait du excuse nag parce que violence moom bu mu mën a doon dañ koy condamner. Hmm. du excuse mais les causes sont profondes. bu fekkee ne nag dañuy ñëw rek bëgg hmm. ko ñaa laaxaale ci ñëpp ça veut ko boobu bëgguñu analyser problème bi. d'accord donc je rappelle que vous suivez votre émission Sénégal VSD te dañu fi recevoir ki nga xamante ni moom moo di Ousseynou Ly euh, bokk ci parti bi di Pastef ñeel coalition Yewwi Askan Wi beneen actualité tamit Ousseynou je pense que suivre nga ko gis nga fan ñu weesu euh, ministre de la justice teew na ci assemblée nationale mmh. ñeel euh, budget atub 2022 ci loolu sax budget bi ñu ngi ko arrêté ci lu toll ci 71 milliards 839 millions 539 mille 729 francs CFA naka nga gisee budget bi nga xamante ni allu euh, alloué nañ ko euh, ministre de la justice ñeel atum 2022. waaw avant bon man du tudd budget bi mais da xool. Hmm. montant bi nga tudd. Mhm. ak finalité bi 71 milliards. waaw boo nee 71 milliards moom lañ arrêté. Hmm. pour 2022. Euh, hmm. léegi da ngay xool yow. 71 yi ñu déclaré. ak finalité bi mooy avoir une justice au service du peuple. est-ce que c'est le cas. donc doo tudd budget bi rek yem ci parce que budget bi bu ñu ko joxee dafa am lu tax lu tax mooy finalité bi est-ce qu'on a une justice au service du contribuable est-ce qu'on a une justice au loolu yëpp. waaw bon <laughs> question boobu ñun ñëpp yëpp parce que ñun sommes tous des des des justiciables. mais yow laa tout le euh, justice bi mooy yéen dafa nekk mbir bu leen soxal tout le temps ah, da ngeen di ŋàññi justice bi nii dafa am dafa nekk justice ku day ak day donc euh, pàcc boobu war leen soxal. waaw du en fait justice nekk fi rek pour. wéy politique est-ce que jàpp bi la mën a contribuer à ce que ñu euh, résolver. au plus euh, bi mën na gën a néew teewul taxawaay bi justice war a am mu mu jëriñ ñëpp. kon problème budget bi mën na yokku. Euh, teewul taxawaay ba ñu war am duñ ko am mu mu mu kii mu sooxe pour ñëpp xam nga justice. Mm. mooy li ma wax ñun ñëpp ci bokk yam mm. way politique beeg mm. liggéeykat beeg jàngkat beeg jàngalekat beeg waykat beeg ñëpp ci bokk yam parce que. yaa a ce qu'on appelle la notion de justiciable ñun ñëpp ay justiciable maanaam ñun ñëpp justice moo tegu suñu kaw léegi boo xoolee budget bi te mooy li ma wax est-ce que la finalité même budget bi contribue na à bi war a am am gis nga euh, maanaam boo seetee année yi ñu génn yëpp li ci ëpp li citoyen yi di wax ci wàllu justice mooy non une à deux vitesses naam nag c'est pas tous les acteurs de la justice ñooy tax loolu am mais am na ci nag ñoo xamante ni seen taxawaay moo tax ñuy ñuy loolu. mais li nga wax ni Ousseynou ministre bi ci boppam moom maître Malick Sall àndu ci parce que gis nañ ba mu teewee assemblée nationale défendre na li nga xamante ni moom moo di justice sénégalaise dégg nañ tamit kàddu yi yëkkati justice bile Sénégal la ñu war a fier ci justice bu ñu am. mënu cee ànd mais dama koy jox rek benn exemple keroog assemblée ba mu dem taxaw di wax am na ñaari député yoo xamante ni dañ leen tudd ci coowal faux billet. trafic de non faux passeport diplomatique ñu ngi leen ciy tudd mm-hmm. te kenn ci député yooyu noonu ñu accusé keroog jugoon na taxaw jël parole mm-hmm. moom en tant que ministre de la justice mm-hmm. maanaam rien que ce fait là waroon na mën a tax mu xoolaat appréciation tu sais pourquoi parce que dans cette même assemblée y a eu des yoo xam te ne justice yu concerné ay député te ba ci justice jógee député yooyu session fekku leen fa comme kan. bari na. lim ci benn. dama lay jox kaawu euh, bi gën a bi gën a récent. Mm. boo seetloo lever immunité immunité parlementaire bu président Ousmane Sonko li liñ ci jaare ba jël dossier bi yóbbu instruction vingt cinq jours la. Mm. député yi xam nga seen dossier kañ la commencé génn. Mm. septembre. depuis septembre 2021 ci la coowal passeport diplomatique yooyu concerné ñaari député yi jug. ba tey décembre député yaa ngi taxaw assemblée di def plénière. député yooyu ak seen seen seen seen seen situation peut-être ak situation Ousmane Sonko du benn. pourquoi ñi passeport diplomatique lañ leen jiyee. waaw kee cas de viol la. waaw mais donte ne nag ñaar yëpp nag ay cas la yu nga xamante ni moom kenn mënu koo tuutal. farlu gi ñu def. Hmm. ci Ousmane Sonko lu leen tere ñu def ko ci député yi est-ce que xam nga jusqu'à présent kenn enquêté gu leen. Hmm. jusqu'à présent trafic de passeport diplomatique maanaam la représentation nationale aujourd'hui moo am ay ñaari député yu ñuy jiiñ ci ni dañuy jël trafiqué passeport diplomatique te fu ñu dee wax trafic de passeport diplomatique dina fa tudd xaalis. Hmm. corruption ngi fa. Hmm. lan moo ko gën a garaaw. mais yëpp yaa doy mais est ce que jaadu na. nee naa la biñ leen di tudd septembre la. Hmm. et là on est au mois de décembre. xëy na seen i dossier